Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wa barakaatu yi maa ngi di nuyu di len ziar Tay nak ba indil len set muy istikhara. buñ ko waxe nak dafa nek mbir mu am solo si dundu doomu adama. Motax ñu ci si lu bari ndax nit ñi dañuy teub rek di ñaanlu te lepp lo gisee adina dafa jitu bo demee si kilay fajj dana xol sa yaram ba pare xol fan lay jaar Xol li la dal li ko waral ak ite ak itam li la war a faj li la war a faj nag mooy garab yi kon loolu rek moom mooy seet doomu aadama dañuy jànkonte ak ay jafe-jafe moo xam si wàllu sëy moo xam si wàllu diggante moo xam si wàllu am-am si wàllu kaaraange si wàllu wér si wàllu tukki si lu mënti doon te kon loolu day jar doomu adama bi itam di xollu ay mbiram bu ko waxee nag waxuñ ngay dem si ay xërëm wala si ay nangam seetlu daal na nekk istixaara bu leer boo xamante ne nii du am ay caaxaan du am ay tatone da koy def mu génn la mbir yi ni mu waree te lii nii istixaar bu wér la boo xam ne euh, lépp lu nekk si doomu aadama bi dana ko génnee te lépp lum mu génne si nit ki itam xattaa sax lépp lu la mën a dal dañ wax na la lii lii la wane lii nag mooy solution bi ndaxte seet boo gis dana génne itam ay mbir ay solution bu fekkee na nga war a génne ay saraxu fruits wala soow wala suukar wala mbiskit euh, wala lu mu mënti doon dana ko génnee ñu ne la kat lii la wane lépp lu seet bi génne day wax ne lii lii la wane sa problème bi lii la euh, lii nag mooy saafara bi ñu wax la ko nit ki def ko mën am jàmm ndaxte boo xoolu sa bopp doo xam lan moo dal doo xam itam lan moo nekk si yow itam fan nga mën a jaar pour mën a am jàmm kon loolu bàyyi leen ko xeel képp koo xam ne soxla na ko rek incha allah rabbi suñ numéro bi muy euh, plus 221 76 605 63 19 bu ko defee euh, nit ki day joxe turam turu ak date. de naissance am bu mu judd ñu xoolal ko ko lépp luñ ci gis si ay mbir lépp ñu wax ko ko allah kon nag tey loolu laa fas yéene woon ne naa leen ko baaxee tey incha allah wax leen ko ñu ngi yem fii ba suba jàmm incha allah asalaam